Mamadou Ndiaye. xam ngeen ko ci télévision Futur Média borom li xew ci biir internet ak yeewu leen Mamadou Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay fay euh, soxna Fatou. di nuyu lii mooy ban euh? hmm? couleur. boo ci joxe rek. <laughs> moutarde la. waaw da ngeen a yi <laughs> àjjuma bi la aca dund ñu ngi lay dalal. maa ngi lay waaw maa ngi lay <laughs> waaw couleur ak cœur la. maa ngi lay nuyu di nuyu Cheikh Tidiane di nuyu euh, Pape Farah di nuyu Chérif di nuyu téléspectateurs yi di nuyu suñu mbokk internet yi Mm-hmm. comme euh, désormais incha allah ajuma yi dinañ ñëw waxtaanee tey see yeeg nouveau média yi ak xew-xewu jamono surtout ci internet bi. Mm-hmm. tey nag dañuy njëkkee ak euh, li nga xamante ni mooy euh, vérification information yi nekk na lu am solo mm-hmm. surtout ci période bi sànq maa ngi dégg benn journal bu titre que ni. Euh, li nga xamante ne mooy téléphone portable mi ngi rapporté au Sénégal 467 milliards de francs CFA. di wax ni ci euh, dernière euh, li nga xamante ne mooy caytu bi nga xamante ne waa ARTP def nañ ko fukki sénégalais yoo jël juróom-ñett yi mi ngi ak téléphone portable wala juróom-ñeent yi mi ngi téléphone am portable am donc lépp nag li nga xamante ne mooy ay message la ay information yi ñuy jot ci téléphone portable yi dañuy gën a insister di gën a gindi sénégalais yi surtout ñuy vérifier tàmm vérification surtout image yi nga xam dañ koy jot détourner wala changer ko te ci nekk am na ay ci biir internet am na ay application wala ay site web yi nga xamante ni euh, seen spécialité mooy loolu mooy gën a euh, vérifier yenn information yi nga xamante ni dañ koy partager ci euh, réseaux sociaux yi mais surtout ci ci biir internet am na benn élément bu ñëw préparé ak corombaar mën nañu leen ko dégtal ñëw gën ko atal wala téléphone intelligent bokk ci jamono ji li gën a yombal wesaare xibaar bu dëppoowul ak dëgg naam nag fi mu toll nii tembe fi nga xamante ni fa la technologie toll war nañoo mën a vérifier lépp lu jaar ci smartphone yooyu le ñu mën a xam ndax dëgg la am déet ci ñoom bokk na ci application bii di tin TinEye moom nag mën a tax nga xam photo bii ndax dëgg la am déet ndax montage la ndax euh, fan la jóge lépp tin ay mën na la ko yombalal boo ko téléchargé mu wan la fépp fi ngay jaar ba xam ndax foto bi wala image bi guddi la am bëccëg yére yi ndax lu amoon la li nga xamante ne moom moo di dëkk yi mu jaar wala fu mu jóge ak fépp fu mën a dugg rek moom tin ay mën na la ko yombalal ndax dañu ko lalaat ndax montage la lépp rek bi le application dina la ko mën a yombalal li ni mel nag di tax lépp lu jëm ci wàllu désinformation di joxe xibaar bu dëppoowul ak yoon xarala bile di tin ay mën nañu ko yombalal. ñu jaajëfal bu baax Coro Mbaax Ndiaye waaye itam Mamadou Ndiaye ci élément bu am solo bi sànq maa ngi dégg nag ci biir élément bi Coro di wax tin ay lan mooy solo tin ay. waaw tin euh, tin ay nag mooy <coughs> pardon benn euh, site la bu nga xamante ni par exemple nga am benn photo bi nga xam da nga ko jot. Mm-hmm. mu nekk benn image boo nga xamante ni vraiment wóoru la ni lii wér na wala dañ koy détourné xam nga léegi benn cadrage sax mën na changer contexte photo. Mm-hmm. surtout ñun ñi nga xamante ni ñu ngi euh, ay journalistes lañu parfois benn na changer contexte bi parfois bari na ci yi xam koy gis toujours dañ koy changer détourner ko mën nañ la ko jox titrer ko sax ci par euh, li ñu ci ëpp dañ koy gis ci presse en ligne bi titrer ko neneen wala wane ko neneen tin ay nag lu mu fi nekkee mooy benn euh, sit la boo xamante ne boo fa duggee bari na ci nag mais man maa choisir tin ay pour mu gën a simple boo ci duggee boo jëlee photo bi euh, dugal ko ci biir tin ay dina la wax kañ la dugg ci biir internet donc tin ay boo doo ubbee benn photo bu nga xamante ni wóoru la comme par exemple am naa fi benn euh, image bu ma envoyé woon ci ci biir euh, Covid bi mois de mars bi euh, am na benn image bu ñu doon jagleel Pape Pape François boo xamante ne dañ ko gis mu mel ne sëgg jël mouchoir sëgg di jooy di di mel ni kuy jooy ñu ci mel dañ doon titre ne eh, peut-être Covid bi moo taxoon pourtant image boobu dañ ko détourné site internet yu bari reprendre ko li taxoon ñu détourné ko mooy parce que contexte bi la woon dañ doon gën a dox ci sensibilité nit ñeeg pour ñu wane ni Pape bi ñaawlu na li nga xamante ne mooy situation bi certes information bi dëgg la mais image bi ñu ko mooy solo saay boo dugalee photo bi ci biir dalay wax kañ la dugg ci biir internet bu dul photo bu bees par exemple kenn taxaw fee jël ñu photo duggul ci internet boobu euh, tin ay mënu ko vérifier mais li mu mën a vérifier mooy photo bu xas dugg ci biir internet dina la wax kañ la mës a dugg ci internet ak ban contexte la woon si non sax ci mbir moomu euh, am nañ ay confrères ku mel ni Samba Diarimpa Badji di ci liggéey liggéey bu am solo ci wàllu fact checking mhm. euh, pas plus tard que hier sax am na ay photo mhm. ay photo kéwél yu ñu rey yu dee yoo mhm. xamee ni dañ leen publier ci internet bi ñu ne yi mooy kéwél yi nga xamee ni ñoo ñooy def buzz jamono ji <laughs> waaw mais ba bañ ko saytoo dafa mel ni yooyu yeneen photo yu yàgg la te ci beneen contexte la woon ay masque daal di koy mhm. sol te mhm. loolu lu yàggoon la voilà effectivement noonu la noonu la wax nga ko waa Africa Check liggéey bi ñuy def euh, surtout ils sont très réactifs d'ailleurs euh, sur Twitter exemple bi nga jox c'est pertinent démb la ñu benn internaute moo publier woon euh, orix yi que ni loolu noonu lañ ko doon transporter jëlee ko Ranérou di ko indi Dakar or nekkete demeewul noonu boo dugalee photo bi vérifier ko da lay wax photo bi kañ la dugg ci internet ak ban contexte la woon donc loolu depuis 2008. fact fact checking bi Cheikh mhm. Tidiane doon wax aussi c'est c'est très important. Mhm. na ci du du du du rek euh, ay yeneen euh, application yi sax yoo xam ne seen téléphone mën ngeen ko rechercher ci seen euh, téléphone boo defee vérification d'image. dina la won ay yeneen application yoo xam c'est plus simple yoo xamante dina permettre nga def fact checking bi nga xamante surtout ñun ñi nga xamante ni lañu. ko xam ne léegi. fake news fake news yi daanaka <laughs> dafa bari bari lool ba kenn mënatul ràññee ak lu amul mhm. waaw xam naa heure ba jot moo tax ma bàyyi leen ak sama temps rek Biram Ndiaye. mais dañuy teel a dugal pub yooyu c'est important mu ngi noonu nag RFM matin fii ak ay simili yu néew dinañ fa dem. mais nag Mamadou Ndiaye li mu indi c'est c'est très important. baax na comme ni ko Cheikh waxee Chérif Pafara ñi ngi ñu def ci taxaw seetlu pour xam bu baax a baax ñu lay sant bu baax di la gërëm. di la jox di la dig daje waaw ajuma incha allah je pense que benn une benn une minute bi xanaa ñu teje ko ak information bi nga xam ne woon lëmbee entre mercredi ak jeudi. Mm-hmm. ci euh, piratage yi nga xam ne am na ci internet ñu seetlu ko ci ay personnalité mu ci mel ni Joe Biden Barack Obama. Mm-hmm. site euh, ñoom ñëpp seen euh, compte Twitter dañ ko dañ ko piraté. ñi ko piraté nag ñenn ñi waa Twitter dañu gis ni si seen biir la bokk. di mm-hmm. wane ni day remettre en question sécurité sur internet dara mënul am 100 pour sur sécurité. Euh, chaîne YouTube am. dañ ko piraté dañ ko ci ñi nga xamante aussi ñooy gérer euh, yenn réseau social yu ci mel ni Twitter nga xamante ni dafa sax bokk ci bourse bi ci diggante bi bourse dafa daal di wàcc. Mm-hmm. di wane ni euh, li nga xamante ni mooy internet amul sécurité à 100 pour cent. très bien Mamadou Ndiaye ñu lay sant di la gërëm la daje àjjuma incha allah. incha allah àjjuma ñu ñëw yaakaar ci bu TIC TIC ak Nouveau Média jaajëfal itam bu baax a baax Pafara ñu ngi di ñaan rek. bi yoon booy ñëwaat nga indaaleel ñu nañu xar yi dugg na. parce que dañu war a dem RFM matin waaw loolu mais di féliciter nag sunu équipe bi Real Madrid. jërëjëf tuuti. catalan bi tey tey mayu leen ko dara aca euh, dañuy dem RFM matin.